ñoo xam ne dinañ ñu mën a guide pour nga xam ne coow du am ak yooyu noonu waxoon naa ko comme ne ko I am open for negotiation and ba léegi I am open for negotiation foog ñu toog ñu waxtaan si loolu noonu xale yi pour ñu dem si moom di ko seeti bés bi awma si problème mu ñëw jël si leen yóbbu leen on a whole day out awma si problème waaye xale yi nekk weekend si moom te xale yi xale yi jigéen leen te xale yi suñ miinee loolu noonu di fanaan fi di fanaan fële di nekk fi di nekk fële suñ magee dañoo fan ne loolu noonu is normal te wax naa ko ko loolu cos euh, euh, samedi bale xale yi ñu ngi woon si loxom euh, mu send ma message mu ne di laaj ma affaire yi daf leen bugg a jëndal mbubbi julli ak ma ne ko ah waaw loolu sa doom lañ lu la neex mun nga leen a jëndal loolu I don't have a problem with that jëndal leen loolu is you because sa doom lañ whatever you want to do for them you do for them seen naa ko ma tontu ko loolu noonu then after mu ne ma ne waaw affaire yi xale sa seen caasi foofu léegi fay naa si kaadi bi am na li ma jot a fey si kaadi bi ma ne ko ah man de kaadi bi yëgaluñ ma loolu mooy samedi bi passé ma ne ko ah man de kaadi bi yëgaluñ ma loolu noonu ah man yëguma loolu su nekkee ne fay nga foofu noonu dara ma ne ko man yëguma loolu noonu kaadi bi kooluñ ma mu ne ma naa ko fu noonu um, pour ñaari weer ma ko fu noonu ma ne ko ah mën waat waatuma ko ci dara soo léegi loolu la ma seen naa ko eh, George Mensi yu code bi joxe there is nowhere fu George Men binda fu any lawyer binda ne oo oh, xam any George binda ne amul right pour gis doomam mi am na every right pour gis doomam yi am na every right pour seet si doomam yi comme ni ko judgment bi euh, depuis 2019 bi ñu jox ni mu ko stéetee am na every right pour visite ak doomam bi visite ko waaye man fanaan bi loolu laa àndut loolu moo indi wax bi loolu moo indi wax bi man yóbbuwuma ko koot moom moo dem kaaji koot try try ñu jox ko order ah order bi nag it was nag jaarutoon si yoon moo taxit ñu squash ko dëkk bi dafa am lu waa lu nekk foog ñu xool ko moom xam na loolu soo nii la demee daal man nag bëgguma problème bëgguma wax bu bari I don't want to be coming here di demalante ak ñëwalante ak ni dama gis ne rek ah, misinformation bi it's getting too much so and I need to come and just clarify just to say my own part of the story so that um, nit ñi mën understand and hamlan lan moo di go on really why Boubacar duma ko musa i doomam yi and I am still open for negotiation pour moom mu toog ak ay kilifa anytime I am open for negotiation mu toog ma toog kilifay toog taagu naa ci suma jëkkër mu ne ma am problème <coughs> pour toog ak moom ñu négocier ku nekk dem sa yoon at the end of the day ñu mun a am arrangement yoo xamante ne dinañ ko mën a def pour xale yi di mën a gis bu ko defee ñu mën a seet way forward pour xale yi loolu la at the end of the day um, man bugguma problème man since bi ma génnee mile two I am trying to work very hard to become uh, <clears throat> uh, the best possible person that I can be. So, Buguma am problem ak buguma bugguma nekk di xëccoo ak kenn bugguma nekk di am ega kawacha. a wàcce ak kenn bugguma loolu yóbbu ma ken court. moom moo ma yóbbu koot te su ma yóbboo koot nag ñu joxe yena order yo xamante it's not healthy pour man At suma doom I have every right as a Gambian pour ma Defence ma boppa ma delu wat yi explain my own side of the story ñu revisit ko Set ndax judgment boobu noonu was reasonable or not and loolu is very simple kenn aayowul kenn gis doom kenn aayowul Boubacar Keita gis doomam bi muusuma koo aaye jooj bi aayewul ko kenn benn kayit génnul wane ne dañ ko dinaay access doomam yi dañ ko dinaay gis doomam yi benn jooj men ñëwul benn document génnul wax ko kenn mënulaa génne loolu noonu jooj meni lifin order bi eh, eh, eh, how to call it jooj bi joxe it's clear seen naa ko ko mu ko amee maa ngi ko amee sa a public document ku nekk mun naa dem si code bi sax mu seet ko there is fi ngaa gis ñu ne warta gis dooma mi am na every pour gis dooma mi te duma leen ko aaye duma ko aayee gis dooma ku nekk na def waru galam si doo doomi ñun ñëpp ñu am njaama ku nekk dem toppatoo sa soxla ma su ma sëy mu continuer di dox soxlaa man bëgguma benn problème at the end of lii laa wax it's as simple as that xale jigéen lañ te dañ nekk xale yoo xamante ne dañ tuuti duñ mun a nekk di fanaan fii di fanaan fële the best thing is na ñëw jël si doomam yi wala xale yi dem fekki ko mu génnaa ñoom di whole oo mu seet ni moo def lu ko neexee mu defa ñoom di whole day su pare mu delloo ci la loolu moo gën a healthy because xale yi dañ am schedules dañ am yu bari yuñ dee def tamit ak si weekend bi parce que man dama leen engage in lot of activities so loolu la <coughs> loolu nay wax bi waaw kenn aayewul kenn gis doomam bi luwaa boobu sax